gan gi Abdou Sané nekkoon député ci assemblée nationale euh, tey mu bokk ci Pastef nekk euh, militan ci cellule bu Côte euh, Sud bu Ziguinchor Abdou Sané ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay. ñu am mbégte dalal ci matinalu réew mi FM tey euh, am euh, nag euh, itam mbégte lool ànd ak yow depuis Ziguinchor alors ñu tàmbali waxtaan bi ak coup d'état bi am ci Guinée yan jàngat lañu ci war a def ci sa xalaat mu ñeel askan yi waaye itam njiiti réew yi. voilà coup d'état fu ko nit dëgg du kontaan waaye fii lu ñuy wax coup d'état xanaa nu mu nekkee affaire militaire mais coup d'état amoon na déjà même bu dee c'est au plan civil. Hmm. bu leen fàtte nii ci constitution bu Guinée président bi nga xam ne moo tudd Lansana euh, moo ko ne Alpha Condé ñaar man la waroon am mais comme dafa am ay présidents yoo xam ne dañu gëm guur mais ni ñoom dañu judd pour être président fexe na ba mu manipuler constitution bi créer benn référendum fexe ba mu jàll. ba mu amaat troisième mandat boole ci aussi am na leneen loo xam ne war nañ ko boole booy wax affaire Guinée parce que Guinée bu mu jëlee indépendance ba léegi amul chance pratiquement pour am ay njiit yoo xam ne affaire démocratie daf leen dugg mais li gën a am solo aussi mooy Guinée tey dëkk la boo xam ne royukaay la parce que au plan économique Guinée am na ressources yoo mën a xalaat yëpp manqué wu ñu dara. mais boo toogee booy seetaan lu français di wax solde migratoire maanaam migration entre entrée ak sortie Guinée dafa am solde migratoire bu négatif lu war a loolu persécution politique yi la persécution ethnique yi la et cetera et cetera donc fu mu ne nii Guinée richesse bu bëree bu mu am ni dans le cadre de la malgouvernance profité wul population locale bi Guinée ñu ngi gën a pauvre te dëkk bi mu nekk dëkk bu riche c'est parce que ñëpp ñoo xam ne dañuy ñefe pour nekk ci nguur lu ñuy njëkk xalaat mooy alal di fa nekk ak ñoom luñ ci mën a profité ba nga xam ne loolu dafa joué ci niveau de vie bu Guinée te Guinée mooy lu ñuy wax château de l'Afrique en matière d'eau mais noonu leen ndox di manqué Guinée donc c'est paradoxal mais pourtant loolu moo fa nekk mm. donc Guinée beneen élément boo xam ne baax na ñu rappelé ko mooy au plan social Guinée mooy dëkk boo xam ne pratiquement dafa am ay entité dafa am ay repli identitaire maanaam pël yi fii la susu yi fii la man nayi fii la ak malenke yi fii la et cetera te loolu baaxul pour Guinée mais baaxul sax pour Afrique parce que xeet yooyu yëpp xeet bu nekk am na beneen dëkk boo xam ne ñaar xeet yooyu am nañu foofu donc problème bu amee tey ci biir Guinée ci affaire xeet day impacté wu ci yeneen pays menacé stabilité ouest africaine hmm. moo waral pratiquement Guinée pratiquement est à la recherche d'un vrai leader te ba léegi du militaires yi ñëw actuellement ci coup ñoo mën a nekk la bonne réponse hmm. alors. Euh, mhm. leçon leçon bu ñu ci war a tiire mooy. gis nañu ni bi coup d'état bi amee kenn génnul pour jàppale Alpha Condé te pourtant Alpha Condé bu muy bu muy def ko euh, réforme pour mu nekk candidat pour la troisième fois am na ay géwél yu bëri yu ko wóoroon di koy gëmloo ni yaa ci nekk yaa ko yor am na ñooñu tey donc encore une fois suñu président yi war nañu moytu ñi nga xam ne dañ leen di gëmloo nii ñoom ñoo gën a rafet ñoom ñoo gën a baax ñoom la ñu bëgg buy métti keroog ngay xam li nekkate yow kese la. boole ci enfin chiffres yi ñuy am toujours ci élection lii moo wane ni ay chiffres artificiels la ñu parce que mënuñu la fal à 60 pour cent mu métti ci yow kenn déggul kenn jóg pour jàppale la ça pose des problèmes hmm. et enfin am nañu ay structures yi ñuy wax CEDEAO Union africaine ñooñu itam war nañu seetaat seen taxawaay parce que il ne à rien di génne ay communiqués yoo xam ne amul benn effet chaque fois bu coup d'état amee lan la ñuy wax retour à l'ordre constitutionnel retour à l'ordre constitutionnel waxul Lamine kese la hmm. donc pour suñu crédibilité war nañu davantage am ay instruments yoo xam ne bu mun nañu décourager loo coup d'état mais pour décourager loo aussi coup d'état nañu décourager loo ñi nga xam ne ñooy créer les conditions de coup d'état mooy manipulation constitution bi ak di def loo xam ne àndul ak sa aspiration population. Mm-hmm. alors ñu dellu si ci Sénégal waxtaanee mbirum politique euh, notamment euh, lii di coalition Yewwi Askan Wi ñu taxawal ko ayu bés ba la ñu génn coalition boobu nag parti bi ci gën a fës bokk na ci Pastef Ousmane Sonko ma nga ca bopp ba euh, tey lan nga yaakaar ne coalition boobu am na ko comme chance waaye itam ndax mën naa jéggi jafe-jafe yi koy xaar yépp ci élection yeeg investiture yi ba mën fee yàgg ni peut-être beneen coalition bi benn Bokk Yaakaar voilà donc euh, may ma d' abord ma nuyoo ak ma félicité ñi nga xam ne nangu nañu bokk ci coalition boobu parce que bokk coalition yombul bokk coalition dafa fekk déjà nga am esprit de générosité esprit de tolérance ak esprit d' boo ko amulee boo ne da ngay nekk nit ku siis boo ne da ngay nekk nit koo xam ne lépp yow la munoo bokk ak kenn le simple fait que ñu mën a am coalition bu mel nii pour le moment yaakaar naa ni ñi fa dem yëpp esprit boobu moo leen jiite léegi chance ñoom bu ñu am mooy lan chance bii mooy boo xoolee ci biir coalition bi ay góor ak ay jigéen ñoo fa nekk mu nekk ay nit yoo xam ne ils n'ont plus rien à prouver sur la scène nationale et internationale donc chance bi mooy pratiquement boo jëlee parti boo xam ne moom laa mën a wax parce que moom laa gën a en un temps record PASTEF am na aujourd'hui maillage sur tout le territoire national ba ci bi diaspora boo jëlee encore PASTEF toujours am na benn discours boo xam ne moo indi les gens à adhérer à PASTEF mhm. tey mun naa wax ni PASTEF mooy la locomotive parce que tey boo jëlee après mouvance présidentielle pratiquement PASTEF moo ci topp mhm. donc PASTEF mooy moo yore lépp et c'est pourquoi encore une fois ma xalaat bi boo seetee nit ñi lu ñu adhéré ci idée Pastef mhm. boo xoolee biir ci ko jiitee y des de l'espoir parce que ci biir coalition bi ay éléments comme ñoom Khalifa Sall ay éléments comme Malick Gakou ay éléments des autres formations yoo xam ne mënu mën nekk fi yëpp di leen lim mhm. ñooñu ñëpp bu fekkee dañu jàppoo déggoo ci kaddu def kenn ku nekk li nga war a def yaakaar naa ni pratiquement dinañu mën a nekk en phase ak aspiration population yi te bu boobaa mën ñu renverser la situation ba jël la majorité donc des collectivités locales. Mhm. donc man personnellement su may dem ci xeex benn esprit toujours lay am mais esprit de gagne esprit de vaincre. Mhm. donc du ma ci sama bopp. ay difficultés et mais nag euh, mais nag ay euh, guerre des égos ni ñu koy waxee wala choc des ambitions ñu bëri ñu ngi koy séntu ci coalition bi te loolu aussi lu mën a am la bu ñu xoolee ponk li nga xam ne ñoo ci nekk est-ce que ragalu leen loolu ak euh, peut-être yenn mécanisme ngeen nar a teg ngir gàttandu situation yooyu mën a am. non booy def ay coalition waroo aussi di ñaaw njort di xalaat ay choc lu ñu wax choc des ambitions. mais ay coow xam nga tàmbali na am déjà balay coalition bay taxaw waa xaaral ma préciser la li am ni c'est mm. humain c'est inhérent à la vie humaine mooy lan waxuñu ni valider nañu quoi que ce soit dañu ne simplement na kenn ku nekk am liberté manifester ne bëgg na ay nit ñoo manifester ne man bëgg naa doon mm-hmm. ko mënoo ko tere kenn yow mii di wax tey boo jógoon nga ne bëgg naa nekk maire de la ville de Dakar en quoi loolu du délit mm-hmm. par contre comme ni ma la ko waxee ñun dañu am ay góor ak jigéen yoo xam ne am nañu ñoom seen bopp ay stratégie ak ay mécanismes internes yoo xam ne ñoom ñooy réguler après la situation ba nga xam ne tout sera stabilisé kooku moom il faut faire confiance à toutes ces directions yoo xam ne ñoo nekk ci biir coalition bi ak seen xam-xam bi boole ci seen expérience bi boole ci ñoom xam nañu horizon boo xam ne moom la ñuy dina dinañu jox seen bopp les outils et les moyens nécessaires mm-hmm. pour que ñu mën a réguler ba nga xam ne kenn ku nekk di nga gis sa bopp ci investiture yoo xam ne mooy ñëw am mm-hmm. d'accord alors ñu euh, dem ca Ziguinchor googa nga nekk révision exceptionnelle list électorale yi mi ngi yëngal gox ge goxaat yi problème certificat euh, de résidence ak yeneen yu ca aju inscription primo votant yi loolu yëpp di ay jafe-jafe tey Ziguinchor lan moo fay euh, situation Abdou Sané voilà li am Ziguinchor mun naa wax moo am partout hmm. c'est-à-dire que coalition bu pouvoir bi dafa toog mu commencé tiit mu commencé xam ni élection yi jubal ni amul benn chance pour mu gagner te comme ñoom fraude dafa nekk ci seen ADN dafa nekk ci seen deret kenn ku nekk commencé na wane lu muy fraude mais xanaa sàcc sax dafay sutura boppam mais bu fekkente ne léegi tollu lañu foo xam ne même pour sàcc yaa ngi koy def en plein jour yaa ngi sàcc doo nëbbatu ñàkk kersaw yeesu loolu moo indi un peu partout dans les régions gars yi di bloqué ay certificat de résidence moo indi ay nit di def lu ñuy wax transfert d'électeurs Ziguinchor am na koo xam ne fukki car à raison de quatre-vingts places par car la indi kenn xam fu mu leen jëlee ay Dakar un peu partout dans les autres régions du Sénégal te war nañu xam ni problème éthique moo war a pousse kenn ku nekk mu comprendre ni bu fekkente ne da nga bëgg a nekk le maire de Bambey waa Bambey ñëw yore seen destin donc waa Bambey rek ñoo la war a fal mais munoo ne waa Ziguinchor nañu ñëw fal la te nga dëkk Bambey ça n'a pas de sens te ñàkk respect population locale ñàkk wóolu sa bopp la donc Macky Sall ci boppam moo war a toog mu xam carrément ni ki am na benn panique boo xam ne dafa installé wu au niveau de certains départements dont Ziguinchor. Hmm. et que ñu mu yaakaar ni mun nañu ko xëcc vers la victoire commencé la woon carrément seen tële parce que pour commencer déjà par la fraude avant l'épreuve nga xam ni kooku amul benn espoir. Hmm. wax nañu itam ne ay yëngu-yëngu tàmbali naa am ca Pastef Ziguinchor ndax ay xëccoo yu fës euh, ci investiture yi notamment lan moo fa xew dëgg-dëgg. bon en réalité xam nga tey képp koo xam ne yor nga journal képp koo xam ne yor nga rajo. Hmm. koo nga xam ne yor ay YouTube te moo la ni am na ay enjeux financiers. Hmm. tu as intérêt toujours nga soulever problème boo xam ne dafay nekk problème Pastef parce que boo nee problème Pastef ñëpp lay lire ñëpp lay déglu. Euh, dafay yokk sa audience. <laughs> mais il faut minorer problème yooyu yëpp. mooy li ma doon wax sànq. c'est-à-dire que afficher ay ambition du délit. kenn ku nekk am na droit ne lii laa bëgg. loolu moo xew Ziguinchor moo xew kaw lag moo xew Dakar moo xew un peu partout. donc ay nit ñoo manifester simplement seen volonté. Hmm. donc il faut simplement nga déglu leen et puis tout boole ci. te des questions yoo xam ne ci biir lañ koy régler. c'est-à-dire que pour nga ne léegi problème la. dafa fekk léegi ñu def la partie validation ay nit contesté loolu c'est là où ça devient sérieux mm. mais bu fekkente ne kenn valideegul quoi que ce soit kenn tolloogul foo xam ne dañu ne c'est la dernière phase finale des des investitures ay nit simplement wax ñu bëgg ne lii déjà loolu mooy problème non no non problème bi kañ lee ñëw su fekkente ne dañu ne parti bi dafa validé à Kaolack pour dire que monsieur tel mooy sunu candidat ba pare coow am laa di nga ne am na problème mais li nga xam ne kenn prononcé gul coalition bi waxagul dara ou même ci biir Pastef ñu ngi ñëw aggraver les choses personne n'a tort pour le moment kenn ku nekk dafa def lu mu war a def ak lu mu xalaat ni moom la war a def jamono bu ñu tollu ni hmm. mais ana lan moo jar pour créer actualité autour de cela au moment où on devait parler plutôt du renchérissement de du coût de la vie de la l'inflation économique de du manque d'eau potable et cetera de toutes les difficultés des inondations des épidémies et cetera période boobu ñuy bay question yooyu pour simplement parler de à Ziguinchor lii ak lii ak lii ak lii. c'est hmm. Ousmane Sonko et de Ziguinchor mais Ousmane Sonko nekkul comme ay leader local yooyu c'est-à-dire que di yore parti ba pare di def un repli régional pas du tout Ousmane Sonko tey dépassé na ay leadership local. Hmm. dafa am leadership national. moo waral même dans les débats son seul vis-à-vis aujourd'hui mais Macky Sall mënatul wax avec qui que ce soit ay second couteau il n'y a aucun problème pour le moment le temps que investiture yi am ba coalition Yewwi Yewwi Yewwi askan wi euh, Yewwi askan wi euh, valider liste yi bu boobaa su amee coow ci nga mun a xalaat ni problème am na te même bu problème waroon am ñu am nañu solution boo xam ne mën nañ ko apporter ba nga xam ne fu problème waroon am dinañ ko tey hmm. alors justement Ziguinchor boobu nga nekk tey euh, yaakaar ngeen ne dina yomb ci yéen waa PASTEF au-delà même de coalition bi Askan Wi ndax gis nañu itam ay kàngam yu bari ci pouvoir bi foofee la ñu faree tey lan mooy situation politique bi foofu euh, dafa favorable si PASTEF wala dëgg-dëgg sincèrement bu ñuy wax tey yaakaar ngeen ne euh, xëy na jiixi jaaxa mën na cee am waa nguur gi jël raw gàddu gi. waaw pour Ziguinchor. Hmm. man d' abord j'ai du respect pour les populations de Ziguinchor parce que ñoom ñooy décider mais ma jox la simplement benn image. Hmm. Macky Sall lu mu jotul am à Ziguinchor lu mu jotul am Bignona lu mu jotul am Oussouye ak tout les moyens yu mu jël. te ñooñu ngay wax noonu ay kàngam la ñu bu dee Macky Sall mooy candidat foofu dafay am unité ñoom ñëppay déggoo ci autour de Macky Sall donc seen entente autour de Macky Sall boole ci le moyen autour de Macky Sall te Macky Sall nekk koo xam ne moo leen nommé ñoom ñëpp ñu dépendre ci moom. lu Macky Sall mënul am nga bëgg léegi kenn ci ñoom nga xam ne mënul def unanimité à l'interne am ko dafa mel ni en ce moment bu loolu amee Macky boo war a seetaat boppam donc c'est-à-dire que Macky ou bien Macky moom matul ou bien ñeneen ñoo ko gën a fort te yaakaar naa ni ñoom seen bopp mënuñu ne Macky Sall mooy seen leader bu pare ñu bëgg a prouver à Macky Sall que ñoom ñoo ko gën a représentatif Ziguinchor parce que ñoom am nañu loo xam ne Macky Sall mënu ko am donc Ziguinchor encore une fois muy Bignona muy muy un peu partout au Sénégal muy Thiès un peu partout ragal naa franchement que la coalition Yewwi Askan Wi mu raser zone boobu yëpp pratiquement tout le Sénégal parce que encore objectif numéro un mooy lan inverser les rapports de force gagner partout nekkul une affaire de Ziguinchor mais c'est gagner partout hmm. et gagner partout pour préparer élection législative boo xam ne moo ci topp boole ci nag élection présidentielle bu 2024. Mhm. bokkoon nga parti démocratique sénégalais Abdou Sané PDS boobu ci waxtaan yi mu ngi woon ak coalition bi waaye ba ñu demee ba dara desul lu dul nas yëf yi euh, taxawal ko dafa caaro ceeku taxawaay boobu noo ko gisee. non taxawaay boobu mënu ma ci prononcé wu parce que aw ma élément d' appréciation et je respecte les positions des uns et des autres donc man loo xam ne maîtriser ma ko du ma ciy nangu prononcé su may wax. damay wax en connaissance de cause. mais boo xam ne. mais ñoom raison yi ñu joxe ñëpp dégg nañu ko wax nañu wax nañu li tax ñu génn ci mbir mi. non ñi ko wax ñan ñoo ko wax. Ah, ñan porte parole bi moo moo génnee communiqué. Tafsir Thioye non porte parole bi. Hmm. dafa ne dafa ne moom yéegul li li war a am. yéegul li war a am ne bu pas dire man bokkuma ci yéeguma donc kooku c'est mun a am ci diggante bi gars yi trouver des mécanismes d'entente. ñàkk bokk parti démocratique sénégalais boobu communiqué communiqué la permettre la nga mën a apprécier moom dafa préciser pour opinion bi pour wane ni euh, mënul bokk ci loo xam ne bokku ci kenn associé wu ko ci voilà. Mhm. aw ma élément suffisant pour ma mën a apprécier pour moom mën ci dugg ci débat par contre soo ma laajee lépp loo xam ne ci coalition Yewwi Askan Wi la nag je suis à waaye parti démocratique sénégalais bi nga jógee moom mënoo caa wax lu bari. parce que aw ma élément d'appréciation encore une fois. d'accord léegi ñàkk bokk PDS boobu yaakaaroon ne xëy na mën naa doon euh, aussi jafe-jafe ci coalition bi ndax beneen coalition wu opposition certainement euh, ci la ñu jëm wala sax yeneen coalition ndax am na déjà yoo xam ni taxaw nañu euh, ñàkk ànd boobu mënul wàññi dara ci yeewi askan wi PDS tam du parti bu ndaw xam nga ci dara ndax fa nga ne d' abord man je ne suis jamais pessimiste parce que mhm. boo nee ñàkk waa ñàkk ànd mooy comme si c'est définitif te keroog. kon yaakaar nga ñu ñu mën a ñëwaat. Mhm. bi gars di non bi gars yi di présenté seen programme au niveau de la presse lu ñu wax c'est clair ñu ne les portes ne sont pas encore fermées les portes sont encore ouvertes. donc ça veut dire que ëllëg coalition mën na gën a yaatu et cetera tout et tout koo xam ne tëjagul portam boo ne dañuy da ngay apprécier par rapport à une situation xaaral kay bay porte bi tëju carrément ba ñu xam qui est qui qui est là-dedans qui n'est pas là-dedans. Mm. là en ce nga def appréciation. sinon gàcce mën na la ci fekk parce que di nga ne nii ak lii le lendemain nga dégg ni kooku. sax situation bi changé. voilà te nee nañu en politique on dit jamais jamais. damay mandu mm. par rapport à ça quoi. yàlla rek moo mën a anticiper sur le mais man en tant que personne insuffisant. donc franchement du mu anticiper par rapport au futur. Mhm. jërëjëf Abdou Sané ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey nekkoon nga député ci assemblée nationale euh, bokk ci PASTEF nekk militant ci cellule bu Côte euh, bu Ziguinchor jërëjëf. merci.